woote woon bis bi bëggoon a am lu ma leeral lu jëm ci wàll yoo xam ne dañ ma ko tegoon ci sama kaw mu xaw a yàgg tuuti nag muy ay tuma yoo xam ne jógewul fenn fudul ci ay nit ñoo xam ne rek dañoo bëgg a defar seeni mbir wala ñu bëgg a defar seeni candidat ba tax ñu teg ko ci sama kaw tuuma yi mi ngi doon ne euh, man mii di fàllu di doom ci sëriñ Xaadim Bousso di ab taawam dama dem jàppale ji Idriss Seck ci politique am bi loolu amee dama ne woon sax duma ci wax waaye mbir day toll foo xam ne day laaj tuuti nga leeral ndax mbir moo xam ne danga ko bokk ay nit ca fi mu toll ci yow la toll ci ñëpp bi mu amee natt boobu dal ci kawam àdduna sépp ko naqarlu du di kese képp kuy ab jullit naqarlu nga lu mel noonu ñu bokk ko ak ñoom ñu taxawuñ ci bu baax a baax a baax kon mbir moomu képp ku ci dox wala nga ciy wax rawatina ci biir eh, njabootam war nga xam ne du sa mbirum bopp yow kese eh, bi loolu amee tim bi loolu amee tim ma ma bëggoon a leeral rek li tax wóor ma mën a ànd ak ndax li ko waral mooy eh, ñaaw teef bi gën a metti ci sama àdduna dal ci suñu njaboot ci ñun dal ci suñu kaw moom moo ñu ko teg wala bokk sabab ba ci moom la jóge suñ xaadim ku ko xam xam ne ab julli la bu doon jaamu yàlla doon liggéey te jàpp naa ne bi mu liggéey booba ku mel ne Idrissa Seck wala ay ñoñom booba seenu njàng sax xam na sax matagul ndax 88 la njëkk a dajale 24 collecteurs jox ko Serigne Saliou ca boobu ne ko doon Serigne Touba ñu jóge fa muy wët ay walis di ci def ay yére di ko ko jox te boobu nekkatoo Sëriñ Tuubaa tudde ko doomam am fu mu jaare moom fu bëri ba ci njabootam kon nga xam ne kon kooku jàmbaar la woon 96 lañ njëkk a dugal fii ci Touba ay boulangerie ci ñëpp xam nañ loolu dan employé tolloog ci 215 personnes ci jamono boobu bi demee ba xam ne lépp lu am ci yeneen dëkk yi dafa war am biir Touba mu jël lim amoon lépp dajale ko ne lii duma ko jébal kenn ku Sëriñ Tuubaa muy industrie bi nga xam ne taxawal na ko ci idée boobu ba mu koy am booba yaakaar na ne ñu bëri booba seen xel ni ku doon sax ci industrie mu amoon ci ab concurrence bu métti ñooñu jàpp ne bu ko taxawalee day indi ay jafe-jafe ci ñoom ñu dem ngemb ko mel ne Idriss Seck mu ànd ak ñoom def seeni mbir ak seen i affaire ba yàlla def ñu teg ko coono yooyu ñu ko teg noonu bi coono yooyu amee ñëpp xam nañ ne mbir la moo xam ne. li ci nekk doy na waar waaye moom taxawaay ba mu ci am kenn da ko ci amul ndax dafa taxaw ñëpp di ko laaj mu ne mbirum sëñ Xaadim Bousso dey mbir mu doy waar la waaye fépp fu nekk bala ma mat 24 heures dinañ ko jëli am ko ko laaj ci ñoom ne ko Touba la nekk mooy leen Touba ci biir Sénégal la kon man mën naa jàpp ne xaawi sutura Touba ak maam mi ngi jóge ci Idrissa Seck ndax loolu ba tey ci la jafe-jafe yu bëri dugg Touba yoo xam ne jàpp nañ sax ñoom bu ñu ko defoon Touba day wàññeeku ci lu bëri te ñoom xamuñu ne Touba dëkkub Serigne Touba la boo xam ne dara mënu ko teg ay jafe-jafe dara mënu ko dara mënu ko indil ay ñaawteef ba loolu amee bi mu waxee ne bala ma mat 24 heures dama koy jëli dafa ma ñëpp jàpp ne la mu wax kat dina ci dellu ginnaaw wala nangam mais da ko dëggal yebal ay nit ñëw fii fekk ko fi rey ko fi lañ def. bañ loolu amee ñëpp ne dafa xaru ku xam Sëñ Xaadim xam ci ak jullitam xam ci ak jaamu yàllaam koo xam ne tabax nga lu toll juróom benn jàkk kër goo dem ba ci kër gi ma nekk jàkka ngi fi di jaamu yàlla foog ma sa fekk ci àdduna loxoom kuruse nga ci te ñëpp xam nañ loolu musta tardé wu benn waxtu ci àdduna ba suur bi ñu ñëw di ko boom ci kër gi dañ ko fekk muy bëgg a julli xam ne ñoom ci jàkk ji lañ ko fekk kon nit ku mel noonu xam ne lan mooy xaru lépp ñoom ñoo ko def bi loolu amee tamit àddina bépp di ko naqarlu murid yëpp di ko naqarlu loolu nag diggante boobu léegi xaw naa yàgg moom mel ni nag murid yi dañ ko bëgg a fàtte ma bëgg leen ko fàttali tuuti li ma tax sax ma def lii defuma ko pour kenn wala di défendre kenn wala di may kenn ay côté non non defuma ko def en tant que dañ ma def ay tuuma yoo xam ne dañ ma ko tuuma ma koo dindi ba ñëpp xam ne loolu du dëgg ñaar bi di ma leeral ci loo xam ne musta leer ci kenn ndax wax ji yàgg na ñu ci wax waaye comme man mii nga xam ne man maa di taawam musuma cee wax te dama ne woon sax duma ci wax waaye nag tuuma yooyu moo tax ma bëgg cee wax bi loolu amee bi ñu ko jël si fii ci kër gi def seen jëf jooju ñu jëf sëriñ bu Bousso mi nga xam ne moo fi nekkoon imam bu tubaa dañ koo tere sax mu julli ji nga xam ne biir mën na laa wax ne la fi ne jumaay tubaa ñi fa jullee keroog dañ ko ne wàññi te jafe-jafe yooyu yëpp ki ko waral mooy Idrissa Seck na moo yebal ay nit wax déclaration ñëpp di ko dégg mu ne dinañ ko jëli kon ku mel noonu mënumaa ànd ak moom te jàpp naa ne tamit képp koo xam ne murid nga wala nga njabootoo fii ci dëkk bi ak si li fi suñu xaadim def ak yéen yi fi amoon lépp lu ci gàllankoor ba am ay jafe-jafe wala taxaw am ci ci wàllu liggéeyam Idrissa Seck loxo ma nga ca ndax jafe-jafe yëpp tey tey moo ñu ko teg suñu ko bàyyee la woon wala mu doxe ci neneen kon yaakaar naa liggéeyam yi benn du ci taxaw kon mën naa laa wax ne leen 400 emplois yi mu fi bëggoon a indi wala 600 emplois yi mu fi indi mooy industrie bi nga xam ne taxawal na fi jafe-jafe yu mu am ginnaaw yàlla ak sabab beeg lépp Idrissa Seck loxo ma nga ci kon su ma ko gisee mu ne murid la di jaxase ay tarixa lépp ngir intérêt boobam dafa jot sëkk nag ñu leeral ci tuuti muy loolu. te dinañ ci gën a leeral yeneen yoo xam ne yu leer naññi la waaye jamono yi moo tax te bëgguma dugg ci ay politique parce que loolu taxumaa jug li ma tax a jug mooy weddi bi ñaare bi itam wax ne itam jafe-jafe yi nga xam ne Idrissa Seck teg nañu ko te duñu ko fàtte ba ilaa yow mi diine te jàpp nañu lu muy yàgg yàgg yàgg dina ko fekk te bu ko fekkee dina ko layoo Abdoulaye Wade recevoir na ma ci biir bi mu jóge ci sëñ Saliou mun ma dama nga fekk ko nga waxtaan ak moom bi ma ñëwee Abdoulaye Wade li ma wax mooy damaa jëloon Idriss Seck teg ko ci kaw jëloon lépp jox ko ko mu mel ne ku yor daraje président mu yor ab lañ setam fu ne mu xotti fa lu ne mu def ko man nag damaa yor sama pusa di ñaw fépp fu mu romboon xotti ko dinaa romb ñaw fa loolu moo war a tey seen jotaay bii jéggaluñu massawuñu baal ñu aax ba loolu amee Idriss Seck wax wax jam def lam ca def taxawaay ba mu ci def mu def ko àdduna sépp di ko xam mos ta taxaw ci fin bi eh, ma sawu leen wala mu regretté ko wala dara damaa jàpp ne sax nag da koy bàkkoo su ma ko gisee mu nekk Porokhane nan day ziare maam Diarra Bousso man damay am sax lu ma xaw a ndax ko xam suñu xaadim xam ne ci njabootu maam Diarra Bousso la jëf ji mu teg ab sëtam walbatiku di def loolu àddina sépp bàyyi ko fi riir mi topp ko te lépp dara taxul ci lu ay bañale ki ay intérêt yoo xam ne du dara ma bëgg xam ne daal képp koo xam ne man de nguur xam naa ne yàlla rek ma ko joxe te du ma ne nag du falu ndax loolu suñu borom moo ko def waaye duma jàpp ci falam te duma ko jàppale tey duma ko jàppale ëllëg ndax li ko waral jàpp naa ne li ma dal nii képp kum daloon tim ci ñi may dégg ñëpp wala ku ma doon ci réew mi ak foo te nekk jëf jooju mu te ko sa waajur waxuma la sax toog ci rajo wala télé di ko wax waaye foo ko gis yaakaar naa bakkanam nga jël waaye ñun na yàlla may nañu jàng nañ xam nañ ay nattu xam nañ musiba xam nañ lépp Euh, jàngal nañu tim yar nañu ci lu bëree bëri bañ mën koo muñ tey ba agsi fi tey di wax loolu waaye tiis la woo xam ne duñ ko fàtte ba ilaa yomu dina naqar la xam ne tim ko fàtte ba ilaa yomu dina ca loolu lépp sabab bi ko indi lépp moom loxo ma nga ca na moo ko wax moo ko jëf te ba léegi mi ngi koy dëggal euh, sama dernier mooy képp koo xam ne jàpp nga ci votem nga jàpp ci ba mu am ndam ndax ndam yàlla rek moo ko joxe ci wax ma ne sax du ko am su boobaa responsabilité bu mu mën a def ci réew mi xamal ne bu ëllëgee di ko layoo wasalaamaaleykum wa rahmatulah wa barakatu